الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبوكي نيغي لي نوي باخ باخ تدين سياري تدين جاجيفال درين لا بنن جيرن بو امام سلو بو خامن ديس ني مبوك موكو لاج ام مبوكم طالب موكو لاج مونا خالي بو خامن ديس ني دال داي ديف يو خامن ديس ني دال گنول تي خالي xale boo xamante daal day am yi muy def bëgg nag mu bàyyi ko jub kocc rek jub kocc rek incha allah te loolu mooy tawféex ji képp koo xamante si ni dangaa am doom mu mel noo xamante si ni neexu la ci xeeti euh, caaxaane ya ci aju wala ñu dénk la ab xale wala nga gis koo xamante ni am nga kilifteef ci moom muy def yu la neexut nga bëgg mu bàyyi ko ci baatin lii ngay def danga koy bindal suratul fajri mooy wal fajri wala yaalin xashrin ba saar wi jeex nga def ko saafara ñaar na nga ci bind benn bi saafara mu naan ko beneen bi mu takk ko incha allah su ko defee rek suñu borom dina ko jubal te dana të yàqu lépp loo xam doon ko def dina ko bàyyi ba tey tamit buñ ko juutalee te buñ ko juutalee xunut xunut bi ñuy tar ci julli fajar xunut soo ko nga juutal ko nga juutal ko fexe moo fexe kii ko takk ko tamit dana bàyyi mboolem ñu leen def kilifa gi nga xamante si mi ngi koy laaj ñu ngi koy sant baax di ko gërëm laaj bu amaam solo laaj bu intéressant la mhm. ñi ciy gën ci seen benn abonné tey partage vidéo yi te di ko sem mooy waral lépp lu ngeen soxla rek ñu leen koy indil ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullah